kon ñu continuer am dari yu dem bu nala naa la ya julli yaakaar naa ne xam nga ko wala ba war nga koo xam tey maa ngi nar a ñëw jàngal la li nga xam ne moo nekk sunnaay julli kon farata yee ma jàngalal noonu boo xamee boo ko bàyyee si julli sa julli gi day yàqu yama la jàngal noonu fukk ak ñeent yooyu wala fukk ak juróom yooyu soko baye bàyyee sa julli gi da yak mu leer era ma ngi ñu ci sunna yi moom bo leen bàyyee sa julli gi do yak kon bu ñuy wax sujjóot li ma nar a jàng tey nii mo moo waral moo tax ñu wax sujjóot kon ñu commencé deug serigne bi nee na wa sunanuha sunay julli al iqamatu moy liqam wa suratun ak allati ba nga xamne ba dal fatiha min ci gannaaw fatiha wal xiyaam ak taxawaay bi laa ñeel wa sirun ak yeelu fii maa jàng yoo xam ne yu saru des na yeelu fii ci moom wal jéerul ak biral fii maa jàng yi nga xam ne yéji xaaru des na ko biral fii ci moom wa sami allahu liman hamidu ak wax sami allahu liman hamidu boobu it ci sunna julli la bokk wa kullu takbir ak bépp kabaar sunnatun sunna la inal ula ba mooy kabaar bu njëkk watta suwu daani ak ñaari taay yu sunu wa julus ak toogaay bi lu maa ñaar leen ñoom ñaar wa taqdimul fatihati ak njëkkee fatiha ala surati ala mooy nga njëkkee fatiha boo nga teg saar waaw ala surati nga ne ala surati ci saar boo ko firee baax na wa taslimatu ak sëlmal saaniyatun bu ñaareel wa saalisatu ak bu ñetteel lil maamu ñeel maamam wal jërul ak biral bi taslimati ci sëlmal alwaajibatun buy aje war wa salaatu ak julli ala rasulillahi ci yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallama wa ak sujud ala anti ci bakkan sunna la wal kafay ni ak sujud ñaar ten sunna la wa rukbatay ni sujud sa ñaari bët yoom sunna la wa atrafil xadamay ni sujud sa cat baaraam yi moom it sunna la wa satur ci kuñ ko sunnaal li xëy na maam ku dul foofu la sunna julli jeex waaw léeg wax ji dana jeex ñu dugal sa ay mbir loola jaxase la ba boo déggu dëgg-dëgg man nga di lim dara boole ne sax la sa bopp waaw xam nga ba la woo sutura ak sàmm saati li xëy na maamuñ foofu la jeexee te wax ji jeexagul nag leneen loola nag yeneen lay jàngale mooy lan mooy saatir ci boppam nu mu war a toll mu ne wa aqluhaa li si gën a néew moom saatir xilaasu rumin mooy talaab mooy talab xeej wa tuuli siraay ak guddab xasabu taahiri na nekk lu laab thaabiti na nekk lu sax xayra mu sawisin bu mu doon lu lay jaax jaaxal lii mooy saatir lii lii la tuddee saatir waaw kon sunaay julli lañ doon jàng tey lu mu wax dam ne sunaay julli bi si njëkk mooy liqaam waaw allahu akbar allahu laa ilaaha illallah salaamaaleykum rasulullah la boo ko bàyyee sa julli baax deng ak sar wi ngay jang gannaaw bo jangé faté waxoon naa la Fatiha faratal way lan kay teg noonu loolu la ñuy tuddee saar mo xam ay la mo xam sar la mo xam lu motul ay la loolu noonu leen la ak taxaway ba ngay taxaw di sar wo ko ko jappal ne sunna julli la bok ak yeelu jang yu ñu wara a xam nga sirru fi ma yu sarru fii jang jàng yelu yeelu boo ko déggee jang jàng si mooy jàng ndànk jàng yoo xam ne da ngaa war a jàng ci suuf nga jàng ko ci suuf kooka sunaa julli la bokk ak julli yu ñu war a jàng ci kaw nga jàng ci kaw sunaa julli la bokk waaw ñu war a jàng ci suuf mooy julli bëccëg yi ak rakk yi mujj ci julli xam nga tusubaar ci suuf ngay jàng tàkkusaan ci suuf ngay jàng loola ñooy julli bëccëg ak julli ak rakk yi mujj ci julli bu dee timit la ñetti rakka la moom ci kaw nga koy jàng ñaar rakka yu njëkk yi xam nga yow dañ ko war a jàng ci kaw nga jàng ci kaw kooku sunna la naka noonu ah, rakka bi ci timit ci suuf nga koy bu dee jeexee la ñaar rakka yu njëkk yi da ngay jàng ci kaw nga jàng yëkkati ko ci kaw loola sunna la yu mujj yi nga jàng ko suuf kon li ñu war a jàng ndànk nga jàng ko ndànk sunna la yi ñu war a jàng ci kaw nga jàng ko ci kaw sunna la waaye wuñ nga sabaane la boo leen sabaane woon déggoo sunna de waaw ah, kay comme tey boo doon julli tisbaar jàng ko ci kaw defoo sunna boo doon julli timis jàng koy suuf defoo sunna donte si julli gi baax na comme Faatiha ak saar ñëw na julli gi baax na waaye defoo sunna bàyyi nga sunna kon julli yi ñu wax ne jàng ko ci kaw nga jàng ko na la ñu wax jàng ko suuf nga jàng ko suuf sunna la kon wa sirru fii maa fii wal jawru fii maa jaaru fii loolu la ak wax sami Allahu liman hamidu mooy boo sëggee ni jàpp sa oom booy siggi baat boobu baat boobu ngay wax noonu leen kooku sunna la baat bi nag li lay tekki samia dégg na allahu yàlla li man ñeel jaam bi nga xam ne xamidoo sant na képp ku sant yàlla yàlla dégg na sa sant loolu lay tekki nee na Seydina Babacar moo taxoon ñu daan ko wax ay loolu ay mbir bi yaatoo yaatu la yoo xam ne soo ko jëlee rek bu yàggee dar su kon dégg nga wax naa la sama naa la maanaam sunna julli la bokk julli mbooleem kabaar yi fi nekk allahu akbar lu ñuy bari bari benn rek moy kabara xamal bi ngay njëkk def kesse moy faral bu ko moy yeb sunu la ok la na jëlu di expliqué biir bi mané julli kabar yi lu ñuy bari bari ben mo ci faral moy kabaaru xamal bi ngay njëkk def mo ci faral bu ko moy yeb sunu la lool moom lo gatt gatt xel xana danga ko xam ak ñaari tay yi sunu lañ xam nga tay yi ak tok bokku de xam nga bo xamé ñaara rakaa julli da ngay tok loolu moy togaay taaya mooy baat yi ngay jàng attahiyaatu lillahi azakiyaatu lillahi loolu la tuddee taaya waaw kon toogaay boobu ngay toog sunna la baat kon boo déggee ñu ne la toogaay yi lañ taay yi nekk soo déggu dëgg dëgg dëgg mën ngaa jaxasoo foofu fekk lii la waaw bokk nañ nga njëkk jàng faatiha teg saar boo doon julli tey nga jàng saar ba pare teg faatiha julli gi baax na baax na de waaye liñ bëgg moy nga njëkkee faatiya bo paree nga soko tek teg dem dégg na ci sunna julli moy yow mamam bi nga sëlmal ñaarel ak sëlmalu ñettel bu dee imam la nak ci ngirum imam malik mom benn sëlmal lay assalamu alaykum ñu gi jeex ay bu dee yeneen ngiri la da ngay gis imam assalamu alaykum wa rahmatullah alaykum wa rahmatullah léegi nak kot la kot bu dee sa imam ñaar yoon la wara a bu imaam sëlmalee benn sëlmalaatagul beneen nga sëlmal sa julli yàqu te loolu dañ ko war a baxal ndax imaam bu ne asalaamaaleykum wa rahmatullah xaaral de ba mu ne yow maam mi ko soog bu dee nag day def asalaamaaleykum benn yoon su ko defee baax na yow tam nga sëlmal waaye yow maam bëgg na nga sëlmal ñetti yoon mooy la da ngay def asalaamaaleykum sa côté droit. assalamu alaikum ki di jide ko moy mam bu ko fat nga assalamu alaikum jox imam bu de amna ko la fete won góos nga defaat assalamu alaikum bu de nak ken fete woon góos ya nek ci dernier sàppe bi ñaari yoon ngay sëlma da ngay assalamu alaikum sa droit assalamu alaikum yene ko imam lii da ngay def sa kanam asalaamaaleykum am nga biral sëlmal bi war maanaam sëlmal bi war mooy sëlmal bi ngay gene ci julli bo faratal nga def nga wax ko si kaw asalaamaaleykum imaam ak maamu ñëpp a ñëpp nañ ko wax biral googu yëpp euh, sunna la ak julli si yonent bi booy taaya nga julliwaat si ne allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa ala barik nangam yooyu noonu lañ ci sunna julli la bokk dégg ak su ñëw booy su ñëw nga teg sa bakkan ci kii suy suuf sunna la ak sa ñaar tànk sunna la ak sa oom yi sa cat baaraam yooyu yëpp nga sëppalee ci suuf sunna la jëb yi laa la waxoon farata la jëb waaye bii sunna la. bii sunna la óom sunna la ca baaraam yi sunna la waaw loolu leer na de ak samp saatir saatir nag ku dul maamam moo koy samp ku dul maamam mooy kat mooy imaam wala kenn kuy julli ñooñu ñu kenn kuy julli ñoom ñooy samp saatir ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu wax bu ngeen xamoon li nekk ci jaar ci kanam kuy julli konoon da ngeen taxaw ñeen fukk loolu ñeen fukk rek la wax waxut ñeen fukki xartam waxut ñu ñeent fukki fan la waxut ñu ñeent fukk léegi nag bàkkaar bu rëy boobu nekk moom lañ lay dawal yow miy julli ak kii jaar si kanam ñu ni la sampal saatir gi mooy nga jël dara teg ko sa kanam waaw sa sampal sa kanam pour kii julli maanaam ki bëgg a romb mu si kanam loolu ndax bu jaaree sa kanam. yow ya, man nga am bakkar yow mi doon julli am no defé am bakkar am na no defé yeen ñaar ñeppay am bakkar am na num defé kenn man na ci bañ am bakkar lo moy fi ñi amé bakkar ñu ñaar ñepp moy yow ñew ma fi di julli fi ngay julli han légui man ma ngi bëgg jall manon na jaar fenen yow ya, tam manon nga julli fenen nga ñëw ba fii di fi jullee sampoo saajut mënta ma ñëw jaar sa kanam comme dañaa la yow mi doon julli yaa ko tey man mi jaar sa kanam it comme amoon naa fi dama jaar sa kanam ñu ne ma yaa ko tey ñu ñaar ñëpp dañuy ñuy bindal bàkkaar am na foo xam ne kenn si ab bàkkaar mooy yow fii rek nga mën a man tam fii rek laa mën a jaar loolu mën na laa dal si jàkka ji tey jàkka ji buñ jullee ba sëlmal soo bëggee génn gis keneen di julli bul dem di ko wëri foo bëgg a jaar jaaral dem jaar ko ci kanam kenn foofu comme imam moo doon imam moo doon ci kanam moo ñëpp te imam pare na foo jaar di amoo bàkkaar kon yow muy julli fi nga jullee noonu xamoo bàkkaar ki jaar sa kanam yi bu dee fii rek nga mën a jullee su fekkente ne yow bi ngay julli mënoon ngaa jullee feneen man tamit mënoon naa jaar feneen kon ñu ñaaree am bàkkaar su dee nga mën a jullee man ko fi rek la mën a kon ñaar kenn du ci am bàkkaar bu dee yow fii rek nga mën a julli man mënoon naa xa jaar feneen mu ñëw jaar sa kanam kon man mi jaar sa kanam maay am bàkkaar dégg nga su fekkee ni yow mënoon mënoon ngaa jullee feneen man fii rek laa mën a jaar yow nga ñëw jullee ni yow mi doon jullee am bàkkaar kon ñent la benn bi ñun ñaar ñëppay am bàkkaar mooy mënoon ngaa jullee feneen mën da mënoon naa jaar feneen nga ñëw julee fi mu ñëw jaar sa kanam ñu ñaar ko tey dañu am bàkkaar ñu ñaar kenn du ci am bàkkaar su dee ma fii rek nga mën a julee mën ta fii rek laa mën a jaar kenn du ci am bàkkaar am na boo xam ne man mi jaar sa kanam maay am bàkkaar mooy yow fii rek nga mën a julee man mënoon naa jaari feneen ma ñëw jaar sa kanam man maay am bàkkaar am na foo xam ne yow mi doon julli yaa am bàkkaar mooy mënoon ngaa julee feneen man fii rek laa mën a jaar yow nga ñëw julee fii kon su boobaa day mel ni yaa euh, maanaam yaa def nu ma jaar sa kanam kon yow mi doon julli yaa am bàkkaar léegi nag loolu nag soo koy bañ pour ku jaar sa kanam nga samp saatir nag li ngay teg sa kanam moom loolu la ñuy tuddee saatir boobu la la wax nela la na dëgër comme xeej ñi muy toll bu dee saalum saalum la bu dee xam nga daba mooy yi ñuy gasee noonu waaw boo xam ne daal daanaka. danay toll ni sa loxo bi nii waaw mën na koo toll mën naa toll ni sa loxo bi ci réyaay waaye doo jël bant bu sew dem na yaa ngi koy def saako déedéet na guddee ne xasa bu sa conc bi nii ba sa cat baaraam na guddee noonu kon doo jël benn affaire bu gàtt rek teg sa kanam te li ngay teg sa kanam na doon lu laab ak lu mënti doon mën naa doon ab birig boo teg sa kanam mën naa doon ab birom boo teg sa kanam. manado naa nit ko tek sa kanam kon tay bu am sobe na doon sabiti na doon lu fa mana sax ba keroog ngay pare dul tay bu doon aw fas nga fa tegoon wala aw bay mën na saa jël de waaye heure bu demee nak yakko na ak saxama wala du fa sax kooka leer ñu xana nga ko do xamné dana mana taxaw sa kanam ba julli ba pare kon sabiti bu dee min nga fay tegi nga wax ak mom comme sa mom nit la. nga ne ko taxawal fii ba ma julli ba pare saa bi na ko sax ba nga pare xëy mu sawi si nee bu mu doon lu lay jaax jaax li nga def sa kanam bu mu bëri ay couleur ay vert fii son rouge am bi bleu balaa nangam couleur yooyu noonu ngay julli sa xel mi di ci nekk yooyu yëpp dañ koy bañ ci saatir ki kon daal su naa julli fa mu xam mooy samp saatir léegi daal lan mooy doy ci saatir bañ mën kaa tuddee saatir xam ne ku jaar si kanamam dañ naan kii si kanam lii la jaar waaye jaaru sa kanam yow muy julli loolu la lay wax moy naan talé ni bant bu reuy comme sa loxo bi ni ba mu jégué na guddee ni xassabu liko dalé sa conc bi ba ci cat baram na don lu lap bu mu doon lu am sobé na don lu fay sax bu mu doon loo heure bu ko nexé dem té bu mu lu bari ay couleur bay jaxassé sa xel mi li moy sa kon man nañu yem dars bi ma bandul la euh, masala yi ma doon wax su paré ma bandul le firi bi ñu fofu sunnaay julli la doon jàngal dégg dalaa na ne bi si njëkk boo nekk li xam ak saar bi ne ci gannaaw faatiha ak taxawaay bi ak yeelu jàng yu ñu war a yeelu ak biral jàng yu ñu war a biral ak wax sami Allahu liman hamidu mboolem kabaar boo def si julli xamal ne sunna la sëf kabaaru yi sunna lañ seen ñaari toogaay yi ñoom it sunna lañ njëkkee faatee teg saar moom it sunna la sëlmalam ñaareel ak bu ñetteel sunna lañ ko ci maamam biral sëlmal bi warit boobu sunna la ak booy julli nga julli si yonent bi sunna la booy julli sëpp sa bakkan bi sunna la sa cat baaraam nga teg ko suuf sunna la sa hóomi nga sëpp ko sunna la sa cat baaraam nga samp leen moom sunna la ak samp saati sunna la si julli li mooy sunnaay julli mbokk su dee xamee nga ko nii dàppale ngënu malakaan xanaa ba bamtu la firi mi ñu dem ba beneen yoon dégg nga sëriñ bi ne wa sunna sunnaay julli al iqaamatu mooy liqaam wa surutu ak saar allati ba nga xam ne baadal fatin bi ci gannaaw fatiha wal qiyaam ak taxawaay ba laa ñaal wa siru ak yeelu fi maa jàng yoo xam ne yu saru des na ko yeelu yeelu wax naa mooy jàng ndànk boo ko déggee mooy jàng ndànk des na yeelu wala def na jàng ndànk fii ci moom wal jëru ak biral biral mooy jàng ci kaw fi maa jàng yi nga xam ne yéen joxeeru des na ko biral fii ci moom wa sami Allahu liman hamid ak wax sami Allahu liman hamid sunna la wa kullu takbir ak bépp kabaar sunnatun sunna ilal ula ba mooy xabaar bu njëkk bi moom rek moo cay faram wa tasudaani ak ñaar taayu sunna lañ wal juluus ak toogaay lu ma ñeel la ñoom ñaar sunna lañ wa taqdimul faatidi ak njëkkee faatiha wala jiital faatiha ala suratin teg saar wala nga ne ala suratin si saar wa tatimatu ak bu ñaareel wa thaalisatu ak bu ñetteel waaye nit maamu ñeel maa moom wal jëru ak biral bi tatimatu ci sërmal al waajibatun bu war wa salaatu ak ala rasulillahi ci yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam wala sujjóot ak sujjóot ala ànd la wala ni sujjóot sa ñaar tenq yi sunna la waru ba tey ni sujjóot sa ñaari bët yi oom yi sunna la wa atrafil xaddamayn ak sa cat baaraam yi muy sa cat ndëggu yi kooku it sunna la wa satur ak sàmm saa bi sunna la waaye li xëy na maam ku dul maamu ku maamu da wax naa la mooy imaam wala kenn kuy julli foofu la sunnaay julli jeexee na léegi moo waxal la lan mooy saajal waa xulwaa li si gën a néew moom Sadio xilaasu mi may na talay ni ab xeej watula siraay na guddee ni xasabu taahiri na doon laab saabiti na doon lu sax xayri mu shawisin bu mu doon lay jaax jaaxal loolu leer kon yëpp boobu suba incha allah